monsieur Bawory ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jërëm. waaw ñuy fa waaw ñuy fàttali ne on comprendra donc ñuy fàttali ne tey ñoo ngi dalal ay waxtu rek gannaaw bam mu euh, yi nga xam ne mooy jongante ca Guinée Conakry euh, kii di candidat à la présidentielle la woon tey retiré na candidature am euh, di monsieur Bawouri doon président bu Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée ñu bëggoon a xam lan moo tax nga retire wu ci présidentielle bi. barkeel bi pour ñett euh, raison mhm. benn constitution bi ak cadre légal bi baaxul mhm. euh, taxal nañ ko suuf mhm. deuxièmement ñaar euh, pour processus électoral bi CENI bi ak cour constitutionnelle bi demuñu ci yoon. Mhm. jaaruñu ci yoon. Mhm. ñetteel bi fichier électoral bi baaxul. Mhm. parce que par exemple guinéen yu nekk Sénégal ñëpp mënuñu voter parce que kenn recense leen. donc bu amee ci réew ñenn ñu ñu recensé ñenn ñu ñu recensé wul. recensé ay xale yu am douze treize ans jox leen ay at de dix huit dix neuf vingt ans. Mm-hmm. yokk seen at loolu yëpp pour euh, jaxase mbir mi. Mm-hmm. bu nu euh, euh, utiliser. Mm-hmm. boobu fichier électoral dinañ xam ne bu baax élection bu leer munu ci am. donc munuñu bokk ci lu. Euh, lu setul. Mhm. parce que après dinay am indi ay tës tës. Mhm. ay rayante ay crise mhm. et réew mi sonn nga ci boobu yoon. tey moo tax ñu Ah. vraiment ñun duñ ko bokk parce que lu ciy génn du baax tey ñu gis ne am na opposition bi nga xam ne jamono ji ci campagne bi ñoo ngay dox ñoom it fas yéene jonganteeg euh, ki nga xam ne mooy président sortant di Alpha Condé nan nga jàngate loolu loo foog ne opposition bi dana ko jëlee ci bi lépp jongante. Euh, loolu indi nañu ay euh, naqar bu bëri. Mm-hmm. parce bu ñu joxantoon loxo ci lu ñu lan lañ ko gisoon lañ la ñu waxtaanoon ci suñ mbir mm-hmm. dina dina gën a dina gën sori mais ñoom ñu génn ci loolu dem bokk ci processus électoral bi mm-hmm. donc Alpha Condé moom moo mun a wax ah am naa lu ma bëggoon mm-hmm. parce que ñëw nañu fekk nañ ma ci sama yoon mhm. donc gën nañu ko dëgër jox ko légitimité et donc mun naa bu élection bi jeexee dinaa wax communauté internationale bu mhm. il faut ngeen valider sama élection parce que ñëpp ñëw nañu bokk nañ ci donc loolu du dimbal et du dimbal démocratie mhm. du dimbal parce que nguur ngi def na ba nit yu bëri rey nañ leen mhm. pour ñu def lu ñu bëgg mhm. et donc euh, benn président muy wax ci journaux yu gën a am maanaa ci àdduna bi mhm. yenn réew rey nañu mais loolu taxul def nañu lu ñu bëggoon donc dafa mel ni ci benn réew kenn mun na wax dinaa rey dinaa def lu ma neex que kenn du ci mun dara bu nu dog loolu yëpp euh, dina indi euh, pratiquement euh, le règne de la violence et loolu baaxul ci réew du tax réew bi dem ci kanam. kon daal yow jàpp nga ne opposant bi di Cellou Dalein moom day dem noonu rek waaye munu ci am dara. day gunge ah, comme ni nga ko waxee sànq. ci ci ci ci ci français. Mhm. yàlla moo xam. Mhm. peut-être que. mais objectivement gisuma lu alpha lu lu mu def yëpp ci ñaari at yi mhm. lu mu yàq lu mu def ba nit yi euh, ñu rey leen mhm. xuloo ak xaritam yi mhm. ñu ko wax bul jël boobu yoon loolu yëpp mu bañ dégg bu eggee fii du dellu ci ginnaaw au contraire dafay dem eh, ci kanam peu importe eh, lu muy def. ñu ngi wax ne am na ci benn commandant tudd Mamadi Condé nekk ca camp Kémé bu Bourama bu Kinja moom dañ ko faat ci guddi alxamis gi eh, ndax amoo tiitange la ñu gisoon ci élection yu mujj yi mu dellu siwaat bi lépp yoon muy violence bi. loolu lañu ñu gën a ragal loolu moo tax wax nañ ñëpp. et Alpha bu mu jël bi yoon. Mhm. parce du baax ci moom du baax ci réew mi. Mhm. et ñeneen yi bu ñu dugg ci lii parce que du baax pour réew mi. Mhm. et yàlla moo xam luy ñëw mais defe defe ma ne Alpha même bu waxee moom mooy nekk président. jàmm du. am ci réew mi parce que euh, ay ay euh, nit yi sonn nañu mm-hmm. du yoon lañu lañu lañu du yoon mooy moo am mm-hmm. doole rek la nit di utiliser pour écraser nit mm-hmm. et nit yi dinañu réagir donc processus politique bi dinañ gën dina gën a dugal Guinée ci crise bi. ci crise bi malheureusement. Mhm. France boobu nga nekk sax justement nan nga jàngate li nga xam ne moo fay xew jamono ji ci campagne bi. bon euh, par exemple euh, ñu nekk France ñoom sax du ñu voté guinéen yu nekk France. Mhm. et euh, lu ma dégg si bés tey tey tey nit yi dañu ragal. Mhm. xamuñu suba nan lay demee mais nañu ñaan yàlla. nu defal jàmm ci réew mi ak population bi et lii di euh, di jàll mm. c'est-à-dire élection bi mu bañ a mm. lu ñu mënatul defar tey est-ce que njottu nga mu mën a am deuxième tour euh, ci élection yi ñu dëgmal euh, loolu defewuma ko defewuma ne loolu dina mën a am mm. parce que président bi mu ne ku kaw lay def léegi pour kaw kaw fatal donc <laughs> du bàyyi kenn loolu du élection di euh, moo am dina def lu mu bëgg. Euh, ban conséquence la boycott bi nga xam ne moom ngeen namoon tey bu ngeen ko defoon yéen ñëpp ban conséquence la élection yooyu di am. dinañ gën a am doole ci mbirum euh, extérieur c'est-à-dire communauté internationale. Mm-hmm. dinañ gën a tamit am doole ci population bi. Mm-hmm. mais léegi lu lu def ñenn ñi dem fële ñeneen des. Mhm. loolu euh, di dindi na suñ doole wàññi na suñ doole. Mhm. mais dina doole bi dina ñëwaat parce que. Euh, dans quelque temps mhm. liggéey bi li ñuy def dina gën a dina nu gën a yóbbu ci kanam et population bi léegi mun na xam ne kan mooy kenn mhm. gën gën nañu yeewu mhm. et dinañ mun a liggéey dans une plus grande transparence et d'une plus grande clarté lu gën a leer mhm. parce que avant yëf yi dafa lëndëmoon yaa ngi ay nit xamuloo tànkam benn mu ngi fële tànk bële mu ngi fii mhm. donc c'était difficile mais léegi yëf yi dina gën a leer ci kanam mhm. incha allah tey nan nga décrypter euh, monsieur le président li nga xam ne moom mooy euh, Guinée li mu tëj yenn frontière euh, digganteem ak yenn dëkk yi c'est que Alpha dafa ragal mhm. dañuy dañuy defe ne ah dina am ay nit ñuy dugal arme ak leneen ak leneen. Mhm. au du côté du Sénégal Guinée Bissau ak Sierra Leone. Mhm. mais loolu yëpp dañuy def euh, dañuy xëbal pour euh, euh, disons créer difficulté population yi. Mhm. Euh, réduire activité yi mais de temps yi bu jeexee loolu yëpp. dinañ ko dinañ ko dindi. tey Union européenne tamit ñoom nee nañu duñu yebal ay ndaw foofu ñu saytu euh, élection yi euh, ban jàngat nga ci def. parce que ñoom wóoluñu processus bu Conakry di def. wóoluñu ko wax nañu euh, insuffisance yu ci nekk. Mm-hmm. mais CEDEAO moom moo dimbali nguur gi pour valider processus bu Alpha euh, yore léegi. Mhm. mais malheureusement euh, dañuy wax africain africain mais sunu mbokk africain yi ñoo nu gën a sonal parce que dimbaliwuñu population guinéenne bi dans la situation actuelle. Mhm. au contraire tubaab bi ñoom jiite lañu le droit. et l'intérêt de la Guinée et l'intérêt de la région. Mhm. Donc euh, loolu laa mun a wax. Euh, lii di euh, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée lan mooy am ci wàllum politique. denu dinañ fexe. Mhm. ba nu mun a am nguur ngi ci réew Guinée. Mhm. pour que boobu réew mun a nekk ni réew yu ñu bien dirigé la ñu Mmh. respect des institutions, respect des droits de l'homme, mmh. une meilleure gouvernance pour que Guinée moom i tamit mu gën a leer mu gën a dem ci kanam mu euh, euh, dajaloo xale euh, doomam yëpp. Mhm. pour mu nekk benn boole leen pour mu nekk benn pour que Guinée moom tam mun a. am am naataange. Mhm. dellu ginnaaw gi ñu gis euh, parti boobule euh, def ndax duñ ko jàngatee ne daf leen abandonné à leur sort tey euh, daf leen maanaam da leen a bàyyi. au contraire ñoom ñëpp ñu ne wóolu quatre pour cent population Guinée bi wóoluwul processus bu am léegi. Mhm. mais dañuy wax ne bu ñenn ñi demee foofu dugg foofu ñoom ñoo xam lan la lan la lan la ñu lu fekk foofu. Mhm. peut-être nañ leen jox chance ba yoon mais bu jeexee jeex na. Mhm. Mhm. donc ñun au contraire c'est l'avenir c'est l'espoir. kon tey président Bawouri du voté euh, du takkal loxoom ci lépp élection. duñ ko def parce que baaxul pour suñu réew baaxul pour si et di dafay gën a indi euh, des comment on appelle ça des désagréments. Euh, monsieur le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi di sant gi leen gërëm ngeen baal ma ci sama wolof bu <laughs> on comprendra dinañ comprendre monsieur le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée mom lañ doon dalal tey ba mu desee ay waxtu rek élection yooyu ca Guinée. élection yooyu Guinée.